أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم mbokk yi ci yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñëw nañ ak fii ak yéen ci seen télévision di leen defal waxtaanu xayaatu saxaaba incha allah keppaaru tey gi ngoonu tey gi ñu jël saxaaba bu màgg boo xamante ne waa jamono waruñu ko réere waa jamono waruñu fàtte turam mooy Bilal muazzinu rasul sallallahu alayhi wa sallam Bilal mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar woo Bilal Bilal rattal leen ci xar yooyu mu doon sàmm mu rattal leen ci sow mi ñu naan waaye gis ngeen barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jural na. xar yooyu nga xam ne moom la bilaal doon rat di jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan ak abubakar jural na ko xéewal gu rëy a rëy gu mag a mag ba bu ko delloo ci fameem ñi ko doon sàmmloo xar yi danañ toog ñetti fan di am soow ba ñi ko moomoon sax danañu yéemu ci loolu ñu ne ko bilaal tey de sàmm nga xar yi ci place bu baax place bu am ñax suba nanga fa leen nga leen fa yóbbaat ah bu ñëwee ci mbiram nag kañ la feeñ moom bilaal benn bis bilaal dugg na ci kaaba ji mu fekk waa xuray si wéet mu gestu ndeyjoor gestu càmmoñ gisul kenn mu jubal ci yàlla ju mag gi tudd hubal mu ne ko qad xaaba wa xasira man abadaka qad xaaba wa xasira man abada kunna perte na alkuna ku la jaamu yow hubal ndeke waa Quraysh sori wuñ woon ñu dégg bilaal di wax loolu yàlla ji ñu jóg topp ko bilaal daw ba dugg kër sangam abdullahi ibnu jadaan mu nëbbatu fa ñu daal di wotante ñu ne ko yow sa jaam bi day dafa jeng ndax dégg nañ muy xas ubal waa ji ba muñ ko waxee baat boobu dafa leen ne wax ji ngeen ma wax ne bilaal dafa jeng bay xas ubal rek dinaa ci rey téeméeri gëléem giñ naa ci laata ak uzza loolu rek wax jooju ngeen ma wax rek ndax ni mu réyee ci man dinaa ci rey téeméeri gëléem bilaal rep bay xas ubal loolu rek dinaa ci rey téeméeri gëléem ñu daal di woo bilaal ne ko ndax li ñu dégg dëgg la bilaal xamul fen ku dëggu la ci dundam ku mus a dëggu la ñu ne ko ndax lii ñu dégg say jëf la ñu fekk ko mu ne keng ñu fekk ko mu ne kekk muy ku mën a wax dëgg mu ne leen dëgg la ñu ne ko dangaa génn ci diinay hubal ak laata ak uzza mu ne leen laa ilaha illallah muhammadan rasulullah ñu daal di koy jàpp dekk bilaal tuuboon na ca ba muy fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak aboubacar ca xeer ma ca xeer ba ca doj ba yonent bi nag daf ko ne woon bilaal comme tuub nga nëbbal sa ngëm ah comme bilaal tuub na nag léegi mbugal mi tàmbale na ñu jàpp bilaal nan lañ koy mbugalee mooy xam ngeen ne màkka dëkku xeer la dañuy bàyyi ba naaj bi tàng jër ñu summi bilaal ni ko yaayam jure woon daal di koy tëral ci xeer yi tëral ko ci naaj bu tàng bi jant bi tiim ko ceeñeeri jant bi di dugg ci yaram bi duñ yem ci loolu waaye dañuy bërëng ay doj yoo xam ne ca doj yi gën a tàng la bokk ñu teg ko ci dënnu bilaal di ko mbugal mbugal yu metti uma yanaan lii ci man gàcce la dee moo ma ko gënal tey jant bi du sow lu dul dina sowandoo ak diine bilaal maanaam mooy tey jii de jant bi du sow bilaal di nekk jullit bu naree nekk jullit dee dee moo ko gën ñu ngi koy mbugal mbugal yu métti lu ñem ci loolu waaye buñ ko dóoree dóor yu métti yooyu ne ko weddil yàllaay muhammad màggalal laata ak uza ñu daal di dénk muy tontu baatam yu màgg ya mooy ahadun ahad kenn la kenn la allahu akbar kenn la kenn la su ngoon jotee buñ ko mbugalee ci mbugal bu metti yooyu ba ngoon jot ñu takk ci doqam buum jox ko goney màkk ñuy wër ak moom montagne yi màkk di ko diri ci naaj bu tàng bi léeg-léeg ñu romb Ammar ibnu Yasir mu ne qad qaala maa araadu wa yaani almustadafin mu ne ñoom ñi amul woon doole day ca jamono démb nga xam ne dañoo duggoon ci lislaam amuñu doole ñu leen di mbugal wax nañu la gaa yi bëggoon ba mu des bilaal maanaam kenn ku nekk bu ñu la duuree tuuti rek ne la waxal hubal nga ni hubal tudd seen yàlla yëpp mu ne ñépp wax nañ lañ leen doon mbugal ba mu des bilaal bilaal dong lañ doon mbugal mu naan yàlla kenn la ahadun ahad allahu akbar kenn ku tudd waraqa ibnu nawfal muy kenn ci jullit ñi da doon romb bilaal ñu koy mbugal mbugal yu metti mu ne ko yow bilaal day boo deewee ci lii ngay wax ahadun ahad wallahi la in mitta ala hada la attaxidanna qabraka janaanan xanaanan la attaxidanna qabraka xanaanan yow bilaal bis boo faatoo ci lii mbugal mii ñu lay mbugal boo ci deltuwul ginnaaw boo ci faatoo dinaa def ci sa bàmmeel barke sa bàmmeel dinaa ko jël di ko ziyaare allahu akbar keroog bisu liberté bi muy ñëw ci bilaal alxurriya benn bis umaya ibnu xalaf xam ngeen ne moo doon sangu bilaal jàpp na bilaal di ko dóor dóor yu metti ci ay yar weer ko ci naaj bu tàng bi abubakar ñëw romb ko fekk mu koy mbugal mu ne ko umaya doo ragal yàlla allah tattaqillah fi hada al miskin doo ragal yàlla ci miskin bi ndax da ngay continuer rek di ko mbugal umayata lan la tontu abubakar yow abubakar yow yéen a ko yàq lii mu nekk yéen a ko ci dugal waaye giñ naa ci hubal giñ naa ci laata ak uzza su génnul ci li ngeen nekk dinaa tàqale yàppam ak deretam allahu akbar nekk ci loolu di ko mbugal mbugal yu metti beneen bis abubakar rombaat umaya di mbugal bilaal mu ne ko kii soo ko soxlaatul mu ne ko soo ko soxlaawatul amatul la njëriñ ceeg ma koo jaay mu ne ko ñaata mu ne ko boo indee ñetti uxuya ma jaay la ko ñetti uxuyaa ngi ni jaay ma ko mu ne ko wallahi boo indi woon benn sax ma jaay la ko abubakar daal di koy tontu ne ko giñ naa ci yàlla soo bëggoon téeméeri ugg ya dinaa la ko jox pour nga jaay ma bilaal xoolal kee soxlaatu ko kii soxla na ko kee amalatu ko njëriñ amal na kii njëriñ allahu akbar alhijra nii la bilaal duggee ci lislaam ni la ginaa bilaal génnee ci ay mbugal moo tax omar ibnul xataab bu gisoon abubakar ak bilaal ànd danaan abubakar sunu sang sunu sang moo ko goreel abubakar sunu sang la moo goreel sunu sang mooy bilaal allahu akbar abubakar sayduna wa ataqa sayduna abubakar sunu sang moo goreel sunu sang muy bilaal nii la mbugal mi continuer ñuy mbugal ñeneen ci sahabatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen génn leen yàlla joxe ndigal ñu war a génn màkka nag jëm Medina su mun a war ba ñu yeggee Medina yonent bi saa salaam mbokkale na diggante Bilaal ak Abi Ubayda ibnul Jarrah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale leen mu daal di yoonal julli suñuy nodd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox Bilaal Bilaal di nodd mu tànn Bilaal waxtaara Bilaalan li yakuna awwalu muazzinin lil islam yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam tànn na bilaal mu nekk première noddukat ci lislaam noonu la bilaal ànd ak yonent bi yor magasinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nodd biir biir Médine jiite kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xeexu Badr ñëw bilaal bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi woon ci yetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xeex ngir kàddu yàlla kawe waaye keroog ca badr ni ñu leen ko waxe woon sànq wala démb ci mbiru Hamza xeex bi ba mu tàngee keroog bilaal dafa jékki-jékki rek gis umayya ki ko doon mbugal sangam ba mu tëb bëgg a daw bilaal taxaw ci kanam ne ko raasul kufri umayya ibnu xalaf laa najawta in naja yow umayya ku gis sa kanam gi xam ne kéeféer moo ciy feeñ waaye yow umayya boo rëccee tey rek maa rëccul noonu umayya bëgg a daw bilaal daal di jël jaasi daal di koy cor ca bopp bi bopp bi daal di dagg allahu akbar mbokk yi noonu la yàlla dimbalee bilaal mu fayu ca yu bon ya ko umayya doon def ca fatxu màkk keroog bilaal am na lu kenn amul ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci armée boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu ubbi kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di joxuñ xërëm yi ak bantam bu tedd bi naan qul jaa al xaq wa zahaqa al batil inna al batil kaana zahuqa xërëm yi di màbb di daanu keroog la bilaal yéeg ci kaw kaaba gi daal di nodd noddom boobu nga xam ne fa la islaam jógee daal di tasaaroo ci kaw suuf moom dong moom moo am loolu bilaal moo mës a yéeg ci kaw kaaba gi daal di yëkkati kàddu yàlla tabaraka wa taala ngëneelu bilaal bilaal yi ana yan ngëneel la jullit ñi war a jële ci moom jàng ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dugg na aljanna ma dégg tànk bilaal di yëngatu bi ma nee abu bila bi ma nee jibril lan mooy yëngatu fii mu ne ma ñaari tànk bilaal man yonent bi ma yéemu naka la bilaal di nekkee ci kaw suuf di dox ay tànkam di yëngatu biir aljanna mu ne bi mu wàccee ci kaw suuf mu dala laaj bilaal ne ko bilaal lan nga def ba ngay dox ci kaw suuf say tànk di yëngatu aljanna mu ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu bees dinaa julli ñaari ràkk wala dinaa ci julli lu ma man mbokk yi lii ngëneel la ci ngëneelu bilaal beneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko seedeel wax ju doy waar yonent bi nee na istaqatil janna ila salaasa ñetti nit aljanna mu ngi xëccu ngir ñoom ñu ñëw dugg ci ñoom ñetti nit ñun ñun ñoo bëgg a dugg aljanna waaye aljanna moo bëgg ñett ñi dugg ci moom allahu akbar xoolal rek lii mooy nit ñi ñoom ñoo xër bëgg dugg aljanna waaye ñett ñii may waaj a wax seen tur ñoom aljanna moo bëgg ñoom ñu ñëw dugg ci moom kan moo ci njëkk mooy Hamza ibnu Abdul Muttalib Hamza kan moo ci njëkk mooy Ali ibnu Abi Talib Ali ibnu Abi Talib afwan Ali ibnu Abi Talib yonent bi nee na aljanna mu ngi xër ngir Ali yi ñëw dugg waa Ammar ibnu Yasir Ammar ibnu Yasir aljanna ngi xër pour moom mu ñëw dugg ak Bilal ibnu Rabah ñett ñi mbokk yi Ali ibnu Abi Talib Ammar ibnu Yasir Bilal ibnu Rabah ñett ñi aljanna moo yàkkamti ñoom ñu ñëw dugg ci moom moom Bilal ak Ammar yonent bi saa salaam ba tey mu ngi wax ci ngëneelu Bilal mu ne Bilal bokk na ci ay ngëneelam julli gu musa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli rek Bilal moo ko nodd allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bu yàlla musa yónni rek yàlla may na ko juróom-ñaari nit yoo xamante ne yu ñu tànn la ñuy ànd ak moom waaye man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ma fukki nit ak ñeent yoo xam ne moo ma leen tànnal seen bopp ku ci njëkk mooy Ali ñaareel bi mooy Hamza Jaafar Hassan Hussein Aboubacar Omar Miqdad Huzayfa Salman Ammar ak Bilal ibnu Rabah ak Mas'ud ak Abu Zar yonent bi saa salaam nee na yonant bu yàlla mës a yónni yàlla may na la juróom-ñaari nit yu mu la tànnalal boppam ngay ànd ak ñoom waaye man yàlla tànnaloo na ma yàlla indil na ma fukki nit ak ñeent ñoo xam ne yàlla moo ma leen tànnal fukki nit ak ñeent ñooñu nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko tànnal yonent yàlla muhammad bilaal ci la bokk mbokk yi bilaal dugg na aljanna fekk ay tànkam yëngu na aljanna fekk mu ngi dund benn bis bilaal ñëw na kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ngëneelam ba tey yonent bi daal di koy woo ne ko bilaal ñëwal ñu añ mu ne ko dama woor mu ne ko bilaal ñu ngi lekk sa wàllu tey ñu ngi lekk suñu wàll dee lekk sa wàll waaye bilaal maa la maa ngi lay yëgal ku woor saa yu ay nit lekkee ci moom ci wetam ay yaxam dañuy sàbbal yàlla anna saa'im tusbihu izaamuhu wa tastaghfiru lahu almalaika ma ukila indahu allahu akbar ku woor ay yaxam day sàbbal yàlla malaaka yi di ko jéggalul fekk nit ñaa ngi lekk ci wetam bilaal dégg na benn bis nit ñi naan bilaal ak aboubacar kan moo gën ñi naan est-ce que aboubacar gënul ñi naan est-ce que bilaal gënul bilaal ba mu déggee loolu lan la wax mu ne xanaa xamuleen yéen ñi may tëkkaleeg aboubacar kayfa tufaddiluuna ni alayhi naka ngeen may gënaleeg aboubacar wa innama ana xasanaatun min xasanaatihi man benn mbaax laa ci mbaaxu aboubacar allahu akbar xool leen bilaal ni mu suufe woon am na benn histoire bu jaaroon benn bisam ak abu zar abu zar a jékki-jékki woon rek ne ko yab nu sawda e yow doomu nit ku ñuul ki mbir mi metti bilaal mu dem ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent inna aba zarrin yuayiruni bi ummi aba zar de mu ngi may xase sama yaay yonent bi mu aba zar ne ko innaka imruun fika jahiliya yow aba zar day ceet doong des ci yow ba tey abu zar daal di ñëw tëdd ci suuf ne ko taaliya bilaal bilaal ñëwal jëlal sa tànk tegal sama lex ndax mu nekk mbugal pour man lan la bilaal tontu maada allah an ada qadami ila wajihin sajada lillah yal na ma yàlla musal ba may jël sama tànk di ko teg ci kanam ngoo xam ne sujootal na yàlla mbokk yi bilaal amoon na soxna benn famille mës nañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent suñu doom bu jigéen bii de dañoo bëgg nga may ko diw mu ne leen bilaal nag ñu demaat beneen bis ñu ñëwaat ne yonent suñu doom ji dañoo bëgg nga may ko diw yonent bi ne bilaal nag ñu demaat ba mu nekk ñetteelu yoon ñu ñëw ne yonent suñu doom ji bëgg nañ nga may ko bilaal ñu daal di nangu bilaal ayna antum min rajulin min ahlil janna ñeenteel ba la tax ñu nangu mooy yonent bi daf leen ñetteel bi li tax ñu nangu yonent da leen tegal ca wax ja ne leen yéen xanaa xamu leen waa ji ma leen di proposé kenn la ci nitu aljanna yi rajulun min ahlil janna ñu daal di koy may soxna mu daal di takk ndaw soosu moom bilaal allahu akbar mbokk yi bilaal bilaal min al murabitin bilaal bokk na ci ñi takk doon xeex ci yoonu yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna bilaal dafa démissionné nodd ne mënatul nodd keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëccëg bi yonent bi génnee àdduna ba ñu waajal ko denc ko guddi googu bilaal fanaanuñ ci kawlal ci suuf la tëdd sango mbàjjam ay rongoñam di tuuru ba fajar gi jot mu génn dem ca jàkka ja daa di fatt nopp yi yëkkati baat yi allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah mënta yeggali ashhadu anna muhammadan rasulullah noonu la daanoo ci kaw minbar bi xëm ñu jël ko di ko nëpp nëppal ba mu jóg yeggali nodd gi ci baat bu suufee mbokk yi bilaal ab jullit yi mënuñu ko fàtte bilaal jullit ñi waruñu ko fàtte ndax bilaal moo yoroon magasin wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bilaal moo àndoon ak yonent bi julli gu yonent bi mos a julli bilaal moo ko nodd tey ñu xool jullit ñi fan la leen bilaal toll jullit ñi lan lañ war a jëlee ci dundu bilaal ak fan la leen bilaal war a toll ñun jullit ñi nañ xool suñu bopp ci taxawaayu bilaal ki doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi ak bëccëg keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Médine jógee Màkk di ñëw Médine nga xam ne toog na ñetti fan ci xuntuma bilaal da doon yéeg ci garabu tàndarma yi di séentu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñetti fan bilaal ba mu séenee yonent bi ak aboubacar di ñëw ci naaj bu tàng ba ci digg njolloor bilaal dafa daw ba ci digg naaj bi jël jëm bi daal di koy sujjóot ci suuf ngir sant yàlla tabaraka wa taala moom mi rëccal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi bilaal a ngi nii nekk benn pied benn keno ci keno yi lislaam bilaal nekkoon wootekat doon woote ci yoonu yàlla tabaraka wa taala waaye bilaal lii muy def lépp ku daan jàng la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata hadis ngeen jàng yoo xamante ne ci bilaal lañ ko jëlee moom mooy ki mujjee noddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bilaal wa kaana axiru azanin lahu yowma tuwafi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mujjantalu nodd gu mu nodd mooy keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna bilaal faatu ca sàmm ginnaaw ba mu ñëwee tàggoo Aboubacar ne ko dama bëgg léegi bàyyi nodd Aboubacar daal di koy imposé ne ko déedéet mu ne ko li tax nga may imposé xanaa léegi ma jëndoon ma nekk jaam moo tax ba tey bu fekkee jaam boobu ma nekkoon sa jaam laa kese mën nga maa bàyyi ma continuer di nodd mais bu fekkente ne nag da nga ma jëndoon ngir ma nekk jaamu yàlla nga xool Aboubacar ne ko dama la jëndoon pour nga nekk jaamu yàlla mu ne ko kon bàyyi ma ma dem saam yenn boroom xam-xam ñu ne dafa bàyyi ba Aboubacar génn àdduna ngir bañoon lu ko metti mu doog a dem saam ci jamono Omar mu tàggu Omar jëm saam waaye xam ngeen ne Bilal bokk na ci mbir yu rëy yi mu gën a def waxuma li mu doon noddal yonent bi saa salaam waaye nodd na ci ñaari jàkk yi gën a màgg Bilal ñetti jàkk yi gën a màgg yépp Bilal nodd na ci Bilal nodd na màgg ci masjidul xaram ci kaw kaaba gi bilaal nodd na ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi génn àdduna waaye bilaal nodd na ci masjidul aqsa keroog ca jamono omar bi ñu nangoo masjidul aqsa fexe nañ ba bilaal ñëw ànd ak omar ibnul xataab daal di yéeg ci minbaru jàkka masjidul aqsa daal di nodd mbokk yi bilaal a ngi noonu bilaal muazinu rasul bilaal xaadimu rasul bilaal saahibu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bilaal a ngoog noddukati yonent bi Bilal àndandoo yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam Bilal magasinier yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Bilal rajulun min ahlil janna Bilal kenn ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na ko ne day dugg aljanna mbokk yi li ma doon suñu waxtaan ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu des ci ñun dégg ak topp ñu ngi leen di tàggu ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.